asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyu leen fii ci Paradise TV euh, tey nag ñu am mbégte ak kontante bu mag euh, dalal kii di suñu mag ki nga xam ne tam moo jiite People's Progressive Party ñu xamee leen ci PPP Papa Mouhamadou njaay mooy suñu gan ci special interview bi Euh, Mr Ndiaye ñu ngi laa dalal jàmm fii ci Paradise TV ak special interview. thank you very much Arona um, man tamit man laa dalal suma kër di la nee am um, Eid Mubarak di jël opportunité opportunité bi tamit di wax Gambien si Eid Mubarak ak um, suma fellow Christians si tamit de leen happy Saint Mary. nga this is the unification of Gambia which is beautiful. definitely yes definitely jërëjëf sa kër gi moom nag uh, nga dalal ñu fi ak jàmm nag uh, ñu am kontaan bu bu baax nag si boobu. Euh, di bëgg tàmbali programme bi nag xam nga ñaari waxtu moom dafa xaw a gudda waaw waaye nag yéen politiciens yi lawoon mooy woon ne su saani kanta di jot rek ngeen ñëw de leen ñu ñu leen kenn du leen xam jubluwaayu programme bi mooy ñuy yaatal waxtaan ñu xam ne papa Mouhamadou Ndiaye judduwul rek nekk ca mhm. dafa am ay jaar-jaar euh, ñu tàmbali waxtaan bi nag fan nga cosaanoo ah, jërëjëf ah, ah, Marona man nag suma situation dafa complicated a little bit. originally suma parents ñu ngi jógee am um, uh, Julangel. Mm-hmm. in URR. Mm-hmm. waaye nag maa ngi def suma childhood in um, Banjul. Mm-hmm. Liman Street. ma dem ba nekk grade ma nekk dem um, uh, form three. ma move dem to uh, Cape Point Bakaw. ak moom fu ma jógee nag. ma dem Fajara. after Fajara ma ñëw door a ñëw fii Newtown. te ma def suma ndawoyaa di play football lu bari di play dem naa di player guy am uh, uh, West Coast region that's um, a village Lamine mm-hmm. ma fa and am player football mm-hmm. so I have a very interesting uh, childhood mm-hmm. te ma different people in the society and that is what has moulded me mu mold ma into kan laa nekk Papa Ndiaye because suma jaar-jaar dafa bari and um, loolu mooy wone ne Papa Ndiaye is a Gambian first Mhm. not ne mi bi sarahuli la olof la ame gambit mhm. loolu am na waaye ñu dem Liman Street Banjul <laughs> booy xalaat sa xale yaa mhm. yéen nga day njëkk xalaat ne Banjul daal nama naa fa bugga naa fa naw naa fa xam naa fa suma xel sori na parce que du ma gën a miss Banjul mooy time time boobu yëpp su um, afternoon si ngoon dañ daan génn ñëpp paa yee toog si buntu kër yi ñun ndaw yi ñu play football. Mm-hmm. su koñ bi xale bu gati ben mbag jóg jubanti la. Mm-hmm. sa pat du fa nek sa ya du fa nek mm-hmm. te tam tay tamit dama halal xalaat lu bari bu ma nekkee xalal. pare euh, di dimbalé napakati ci ni fi na ñu jël meñu ay jën ay ay ay ay ay ma crap ñu ko isu ci kër bi di ko di jël poti poti tamaté du ko tagal du ko du ko du ko baxal. ba tamit ma nga remember boo daan play football KJ5 mhm. time boobu da nga daan am suñu si kaw ñun ñu nekk si suuf di mhm. play football so I have a very uh, good memory of um, te tamit di di di fàttal ko time boobu noonu once a year dañ naa am gaamoon mhm. um, uh, Abdaay su ko foofu noonu foog naa saale nii laa cannot remember and it was nostalgic dañ daa mën a génn dem fo ñëwaat waaye loolu moom su ma demee Banjul rek loolu dama ko def fàttal ko loolu am na solo ñu dem ci jang bi. wa xam nga buñ ne saraxule nak <laughs> ñu xamé ñu ci yëngatu si yafi business way ñu xamé ñu ci diina itam. Mhm. fo tambalé school nga doré ndax dara nga commencé. dara bi dafa nekkon part of daily life. Mhm. dañ dawr dara, mhm. ñu dem ba am age pour wara dem school primary school. ah suma pa jobuma ma marina school. te loolu. xaritam moo moo doon yóbbu doomam mi Marina School. Mhm. le docteur Mani docteur la woon. Mhm. soo kooku jànga. Mhm. yóbbu doomam mi school. man maa daan dem su ñooñu. soo kooku nag insist na suma pa daf maa yóbbu Marina. su ma fa initially yaa ngi asaraxu lay rek mu bañoon mu bëggoon ma mu bëggoon ma dem si conventional school bi. soo loolu laa def soo ñun dañ daan wàcc school dañ daan wàcc ngoon su ñu dem Daara. Daara Oustaz ñu bari ñu xamoon um, uh, li. Um, Euh, naka doot yi euh, perseverance hmm. dañ xamoon nañ daara Oustaz Cissé baa ngi woon so ñu ñëpp foofu lañ daan dem ngoon so hmm. we were doing both dem school conventional in the morning in afternoon ñu dem daara saturdays moom composé daara la woon ba pare leneen tamit hmm. su school tëjaan su school tëjee tey rek si élection su ma ñu ñëpp la daan buub yóbbu ñu si si si village bi foofu lañ daan dem soma soma bi yëpp di di béy dunda lan la suñ eh, moom lan la dundoon temps bu kon xam nga julangal ah waaw. xam nga bey bey du la neex de parce que ku judo bandi yaroo bandi wa dem ci ko wi de bey mom suma suma oncle li ñang na ran dur na pour ma bey waaw parce que regrettu ma ko regrettu ko te time bobu ah, degeerum bopa di dama ran setan dis Indian film xam nga time Indian film moy sun moy mooy ah, cartoons mhm. so suma demane nak Ah, dama daan gis ah, ah, donki xari ndaw yi nii. Mm-hmm. naka donki su ndaw yi. Mm-hmm. mbaam yi ndaw yi nii. Mm-hmm. di téye mbaam mi. bàyyi ba yaayam sori ma toog si kaw mbaam mi nag. mbaam mi di dem. so it was to me was like maa ngi relief movie su ma si. cinéma bi it was dangerous waaye time xale la woon. tey I have very good memories of Tulangal also. and I continue to go there dama fare dem nag gëj naa fa tuuti. waaw maa ngi planaat pour dem foofu noonu parce que ñun saraxule yi dañ gëm ne nit ki bala ngaa baakoo sa boppa mm. bala ngaa baakoo sa kër mm-hmm. sa kër baay foofu mm. foo leen cosaane nga nga nga defa dara mm. donc nga am fa tur so ñun daal te alhamdulilah rabbil alamin even though suma pa def na fa ay structures ñun tam ñu ngi try pour réhabiliter those structures su ko defee ñun tamit suñu demee ñu wax nit ñi fii kër mm-hmm. nga am fi cosaano waaye euh, judoo Banjul yoroo fa toxu si kombo gi. waaw kombo gi jamono jooju foog naa ne bari mbeex comme Banjul. non léegi naka nga dundee wéet boobu ndax da nga daan daw di bëgg a dem weekend Banjul ak yooyu. <laughs> initially nag dama daan dem weekend. Banjul Banjul hmm. euh, parce que foofu la suma xarit yëpp nekkoon. Hmm. waaw bu ma demee high school moo suma xarit kombo lañ nekkoon. Hmm. su ma door di. miin kombo miin kombo door di play football a so football bi ñu take over my life. and um, mag door di ba géj a dem Banjul so transition la woon because football bi man am very passionate about football boobu jëloon suma life trop bi nga xam ne mujjee si sax léegi-léegi sax dañ ma daan dóor pour may dem daara du ma daan nangoo dem daara parce que football bi moom ma gënaloon so Serekunda moom football bi la woon ak di dem aaji mango ak Serekunda seen mbori Dipakunda foofu noonu mm-hmm. foofu yëpp mango la woon mm-hmm. te xam nga ku jógee Banjul xamuloo mango bu bari so dañ daan daw dem foofu noonu. waaw dërëmu bi nag parce que ah? gars yi nag ñun nga booy ñoo xam dërëmu waaye Banjul xamuñ dërëmu. <laughs> loolu dërëmoo ñëpp a ah. def. ñëpp a ko def ñëpp def ñëpp a ko lekka. Ah. Um, uh, yëfi xale la. Mm-hmm. fan nga ni ak um, uh, bu ma daan dem. Julangeel tamit um, temps boobu noonu. forest bi soriwut mhm. fu nit ñi daan robi ji soriwut mhm. Mhm. si gannaaw village bi la woon rek so ngoon ni dañ daan ànd suñu xaji uti a ñomboor ay ay cokkeer léegi léegi wan si na waay nag paa yi duñ ko daan yëg nag ñu ut ñu ñu jàpp golo waaw <laughs> waaw loolu yëpp tamit xale la woon o lizat yu mag yooyu monitor lizat yooyu noonu di ko jàppaan di ko ne dañ koo tooga tooga was very unhygienic parce que xale lañ woon dañ daan jël sujóor yi màgget rek dafa ndox dafa xorom rek. wala poti tomate yu mag yu waaw exactly mm-hmm. so loolu dañ ko daan def. Mm-hmm. so yooyu tax na ne ba nga xam ne ne half of my life half of my soul suma suma xol bi. Mm-hmm. always daf dee mën a daf dee mën a gëstu baag si rural certain bi. definitely nga ne high school ban high school nga demoon. Euh, maa ngi demoon si demoon school bi nga xam ne ne is the best school in Gambia mm-hmm. and continues to to be the best school in Gambia mm-hmm. yaa ngi ree nag xam naa xëy na school boobu nga demoon mm-hmm. which is Senegal High School foofu laa demoon non boobu moom xam nga kenn wéy di wante wu waaw waaw góori góori fa la ñoo dem waaw góori góori <laughs> waaw waaw waaw boobu am um, na foofu laa demoon na maa ngi fa dem 82 uh, uh, ma jeexale 87 di la bugg a raconte something very important lu ma lu ma daloon bu ma doon dee bu ma doon dem pour fay suma pour nga soo temps boobu noonu da ngay dem pour nga confirme ndax yaa school bi jël nañu oo jëluñ la oh, ba pare tamit da nga mën a fay sa school fii si daddee mm-hmm. so ma dem éga mm-hmm. si rang bi te yàlla def na ne tamit temps boobu noonu comme entrance lañ amoon Sam Ndiaye mu ngi fa woon time boobu Sam Ndiaye man time yi kii Faragof last year bi la woon waaw waaw dan nga am Sam Jaay am vice président vice principal la la woon dan am Fada Gof daf kii keneen ku gàtt fi Fada moo fi waaw so ma dem pour fay suma euh, school fees bi hmm. gaay ma non yow warloo fay school fees ma ne lu tax gaay na nga am scholarship hmm. this is very important pour nit ñi understand hmm. so during that era scholarships were given based on merit su fekkee doo ko yëg sa yoon du ma ko yëg and yàlla dafa naan I came third in the Gambia su ko ma entrance bi te man xamoon time bu ñu xamuñu scholarship sax ma dem fay Gambia war déedéet waruloo fay parce que da nga am da nga you part of those students nga xam ne am nañ scholarship loolu sent a very good signal to me time boobu nag xamoon importance yi bu ma demee ba mag ba jeexal si laa door am am importance yi ma kontaan mm-hmm. ne government jox na nañu scholarship mm-hmm. ku nga xam ne ne he is he is from a very wealthy family. nga mm-hmm. xam ne papaam am na mm-hmm. soonut. Mm-hmm. kay jox ma scholarship. te xamuñ ma. su ma index number bi rek lañ gisoon. jox ma scholarship. so mu ngi wone ne time boobu ni scholarship su ñu ko daan jox dañ ko daan jox based on merit. ma kontaan because yar bu yar yar bu ma sama famille bi yar. normally su fekkoon keneen la ngaa jël xaalis bi lekk ko kenn ko xam. ma jël xaalis bi nag delluwaat suma papa ma ne ah papa de am na good news. gaynde gaynde waruma fee school fees fo waruma fee books. from four months to five from five. mun ah doom de congratulation baax na ku jël xaalis boobu nag. mu ne léegi damaa dem back to your school. ma ko keneen ma laaj kenn principal mu wax ma kenn ko xam ne ne mu ngi struggle ak uh, ma school fees am mu fay ko. bu ko defee tamit xale xale laa woon. wa later on in life ma xamna suma pam mo doon ne lo am dang ko wara bokka bokkaan nit ñi. tamit ma jangane tamo nek de government ñu joxe scholarship is based on merit not based on favoritism kan mhm. so lolu jangatu bu nga xamne ne mu ngi man betay mhm. and has uh, impact on my life 1987 St Augustine's jehna na waaw ñëpp xamee la uh, jàngakat nga won ben ñaar ku yëngu won ci sport bi nga nga jéxal high school sa xel bi fan la demoon. temps boobu non dafa demone pour liggéey waye again ma ngi gërëm suma xarit papa bi. Ah, docteur Mané léegi docteur Mané mom mo wax sa mo wax pa bi nak ki amna opportunité jobu ko mu jang bu ko duggal si business. waaw bu ko duggal si business man. parce que ça yu da naka nak musuma nag business nak man am ah, one of those rawlis nga xamné ne. Eh, sawr ma ci fi business man eh, ever since man dama rambuga di Joko wante joklo wante nit ñi ma rambuga di set naka la ñoo dimbale nit ñi so puma panek ma school in um, in uk madam stories fofu nonu and yalla def um, uh, after five or six years ma am suma masters in agriculture economics so the other interesting thing lu xapon on time bu non bes ma jexal suma last paper bi seleksi ma dog ticket ñim si gambia haruma suma graduation haruma na ma am job experience in gambia ah, in, in, in, uk parce que i was already prepared pour ñu gambia pour ma ñim ci sax suma ma laaj yo la fi ut si ko man gambia mo ma tax to i want to come waaw ma can you believe it depuis lolu dem i didn't go back to england fi la ma suma certificat su fekk graduation gown amoko suma certificate bi la am rek ma dugga door liggéey euh, euh, in Gambia. foo njëkkee sa liggéey bu njëkk. Euh, boo liggéey bu njëkk bi nag maa ngi door with the Minister of Agriculture. Mm-hmm. under the Department of Planning. Mm-hmm. te foofu mooy woon di NAF Center of the uh, Minister of Agriculture ñoo daan xool projets yi. Mm-hmm. di la évaluer ndax lu ñu war a def biir Gambia ñu ngi koo def ndax mi nañ seen tàggat yi. di tamit su nit ñi ñëwaan pour invest in, in the agricultural sector suma department la woon pour seet na project bi proposal bi méngu na ak the agenda of the country so foofu ma jàngee fa lu bari um, ma jàngee fa uh, processes ma jàngee fa connections diggante uh, man ak man ak different ministries yi ma jàngee fa tamit naka la ñoo binda parce que soo jógee soo jógee bitim réew soo ñëwee rek ak noo mu am xam-xam foog nga am ku laa mento Mhm. so mentorship you know ñoo ma jàngal naka la ñoo bindee. kenn euh, mel ni. kenn ku ci mel ni Sambu Kinte. Mhm. léegi Sambu Kinte. Sam Sam Kinte nekkoon. Euh, dafa utee ki nekkoon civic education non formal education. non agriculture la nekkoon. ok and then euh, nga amoon benn gaay moom fàtte naa turam da moom Christian la woon. Uh, to name am bi ñëwee naa la ko wax. people like Mama Cissé moom he's still around. and i am uh, uh, somebody am um, naka la doon it something Damfa moom he's passed ñooñu new, ma dimbaloon pour ma mën a improve my writing skills but of course xam nga new. Right, rek da nga day continue continue to read. man tamit yàlla dimbale ma I was very good in computers those days. ma ma gis ministry before, foofu noonu département some computer systems was still was still very very old. time boobu suñ naan jël pour analyse pour appraise project mhm. ndax baax na ndax baaxut dafa la naa jël ay one month mhm. so man ma ñëw nag types yi ñoo fa nekkoon typing pool bi waaw dictate fii waaw was too much ba tamit um, ma use excel bi mhm. uh, defa ay formula sek yooyu noonu uh, luñ war a luñ lañ war jël one month daf la naa jël maybe three days because of create naa database boo xam ne ne su ma ñëw like su ma bëggee am di uh, benefit to the economy am na formulation nga xam ne da nga ko fa dugal rek su na la ko so loolu dimbala ma lool te bu ma doon dem ma bàyyi fa so those are some of the things that I, I, and also gave back to ma doon liggéey ministre of um, agriculture from foofu nag uh, ma dem to um, CRS nag amoon benn project called National Women Farmers Association ñoom seen liggéey moo woon na dundal bene dimbala jigéen ñi naka la ñoo béyee bene naka la ñoo naka la ñoo dimbale jigéen naka la processé benn mooy ñu nal ko si diw ñu nal ko mhm. mhm. lafir bi euh, sagal bi mhm. use ko am animal feed bu ma fa demee nag maa ngi fekk gaay ñoom jigéen yi suñu jënaan be suñu benn bere bi bana baana ñoo nyom na ñoo jëna ñoom dañ ko daan jaayal waaw ñu jaayal ko bopp waaw so suñu waroon am dalasi profit euh, five dalasi profit dañ am maybe fifty butus so ma ñëw nak um, with the management team ak suma then director um, uh, Dr. Kuchie Mane ñun ñu set up marketing strategy hmm. ñoo léegi benn bi dañ ko boole yëpp dañ ut baaya hmm. baaya ba ñëw su ñëwee ñu ñëw négocier ak baaya bi hmm. ñu négocier good price buñ ko defee nag jigéen bi su fekkee ne hundred dollars la war a am bu door di am two hundred three hundred soo dimbaloon na gaay ba nga xam ne ne tamit seen economic life yi mu mu yokku te tamit um, during that time tamit ñu gëna na jangal di naka la ñoo gëna a uh, processé ba uh, diw bi su ko defee ñu am good quality mm-hmm. so bobu woowen some of the things I did but then the people that were under me ñu nga xam suma ron lañ nekkon ma jangal leen naka la ñoo monitor ak evaluate mm-hmm. project parce que so nekk ci project il faut nga xol nga understand la nga fa bëgg jëlé jëlee mm-hmm. nga dem xol project ndax loo wax ne da loolu nga bëgg am nga ko fa. Mm. soo ko amutee lan ngaa def. Mm-hmm. so loolu mooy ma monitoring evaluation ma jàngal gaay yi nun noonu after nag project bi end. Mm-hmm. ma door a dem uh, to a very interesting uh, chapter of my life. mooy na ma dem apply for um, uh, to become the director of investment promotion and marketing. Mm-hmm. at GIPSA. GIPSA moo won ñoo ñoo woon responsible pour jaay Gambia si biti. ñoo ñoo responsible woon. pour ut investors ñu ñëw biir ñu ñëw biir Gambia ñoo ñoo responsible woon pour make sure nag investor bu nga xam ne am na question about naka la ñoo invest in Gambia nga foofu noonu so ma woon director investment promotion ah, ma def def ay jóg yu bari ah, ma mun noon ma isi ay investors nga xam ne ne ñoo nañ fi am na ñu nga xam ne ba tey ñu ngi fi waaye dañ xanaa change seen tur tuuti rek ñu invest biir Gambia so for nag ma am skills bu nga xam ne ah, suma relationship ak international community bi ma amoon famit ah, skills bu nga xam how to convince people to come and invest in Gambia ñëpp xamoon nañ time no the investment perception lu ñu yi naan Gambia was not very good because human rights abuses ah, um, so many other things so ma mun dem despite all that things ma mun a dem attaque investors mu ñu ñu mun a ñu in Gambia ñu invest so loolu loolu laa fa defoon. Hmm. ba ak yéen tamit euh, lu ma defoon si euh, ministre of agriculture tamit. Hmm. loolu laa fa defoon parce que projet su ñëwaan. il faut hmm. ñu appraise ko seet ndax kii projet bu bu moo isini ndax nañ create employment. tout ndax net benefit bi Gambia la moo dem. so net benefit mooy lan. xam nga su gaa ñëwaan dañ leen jox am ah, incentives mm-hmm. moo tax waiver yi mm-hmm. seen moto yi ñoo ñëw duty mm-hmm. waiver yi yooyu nañ su ko boolee yëpp léegi nga so nga seet ban benefit la project bi di in Gambia employment creation employment ne du ne labour si rek la technical ah, ah, technical skills ñoo employ ñaata ñaata ñaata ñaata bill la ñoo fay nawek ok ñaata indirect taxes la ñoo fay ak product bu ñoo produce fii ni lan la moo substitute from booy isi mhm. su ko totale nag su fekkee ne benefit Gambia bi moo ëppa mhm. da nga recommend to the board ñu approve kooku noonu So uh, yeah, that was very, very important. That was very, very important. Nyungiseho yeah. Wahtante, uh, special interview, Feature Paradise TV, ak Papa Mohamedou Njai, uh, party leader bu PPP. Nyun dapale ko tuti rek, buñ fi ñëwé ñu gëna yaatal waxtaan bi. Jërëjëf. the smiling coast of Africa. mbokk yi ñu dalal leen waat fii ci Paradise TV special interview ak Papa Mohamadou Njie party leader bu PPP euh, Mr Njie dellu si nañ waat waaw euh, def ministry of agriculture def nga CRS def GIPSA Legi ñu xamee leen ci GAIPA euh, ñu jógee foofu nag fan nga dem waaw man suma journée dafa interesting mhm. ba ma resigné from uh, GAIPA mhm. euh, time boobu nag I was at the, at the peak euh, Nini ñi jaaxle nag lu tax mhm. because the salary was good dama um, daan tukkee almost every every week ñu but then the reason I resigned was that um, suma ideology the ideology of what was going then in the government was, was totally different. Mm. Um, uh, to me, there were uh, misprioritization. fu dugal investment activity def defuñ um, uh, can you imagine time when you go to South Africa. pour auto um, investors new invest in the cotton industry. in the clothing industry. Mm-hmm. to me it doesn't make any sense. Uh, we have to look at what are we good at. Mm. And uh, then this was like uh, since 2000. I mm. said Gambia can, can become a, uh, a financial center. Mm -hmm. soo xoolee dëkk like Switzerland ak yooyu dañ cost of doing business was is reasonable People say size weer fa la jox opportunité boobu noonu. Hmm. parce que time boobu noonu tamit fekk going to ngi door Gambia. Hmm. so no ma why can't we ñu seet naka la ñoo daar daar daarikee suñu effort yi su ko defee Gambie bi comme financial center language bi mu ngi fi distance from Europe mu ngi fi it's not too far um, su ni su su west bi nelaw ñu ñu ngi jóg three we already have banks yi nga xam ne ñu ngi door de ñëw so nañ promote nañ seet naka la ñoo change financial regulations ak laws yi ak offshore banking rules si su ko defee ñu door invest foofu noonu dama ah, laa jox benn exemple rek hmm. su fekkee ne ñaari ñaari dëkk ñu ngi def business ñaari businessman ki jóge India kii nekk Nigeria yu hmm. bëgg a sign a business contract hmm. ne ah, Indian bi du comfortable pour sign business contract bi in Nigeria. Nigerian bi di du comfortable pour sign business contract in India. what about su amee third party country like Switzerland luñ luñ luñ ko def. ñu sign ko fi in in su ko signé both parties will be content because we have we have the, the lawyers. So those are some of the things that I was trying to promote, but then it fell on deaf ears, and then my uh, ma resign. bu ma resign nag ma liggéey ak benn uh, Sénégal Serigne CCBM. new ñoo uh, digital plan in Gambia. boobu made, mu change my career life 360. made them into business but business was more about sales marketing. Mm-hmm. Um, bu ñu ubbee um, uh, bu ñu ubbee compagnie bi digital planning. Mm-hmm. ma dem seet young people nga xam ne mosu ñu am job experience bokkuma ñoom dara. Mm-hmm. gars yi ñëw ma ma ma train leen. am na groupe bu nga xam ne dama leen train in direct marketing. marketing mooy mooy lan nga jël kaas bi nga dem jaay ko. soo sooy jaay kaas bi doo ko li kaas rek la de da jaay bénéfice kaas bi soo ñu doon jaay e, electronic goods mooy am ACs mooy fridges ak yooyu noonu te ngeen baalal ma de dinaa jox benn comparative advantage comparison fii nii boobu noonu suma broda e, moom ñoom ñoo dominé woon electronic market bi ñoo daan jaay ACs waaye ñoom tamit boutique bu ndaw la ñamoon after sales service was not was very good. Mm. so man ma ñëw nag change the way we do am um, direct marketing ma jàngal suma suma xale yi suñu demee si office. Mm. nga ñu xool sa AC bi. Mm. ubbi la da ñëw ubbi la AC bi war na ne ne AC bi dafa dëti. o oh, AC bi am na fu nga xam ne ne mën nga faa def spray dañ daa ñëw ubbi ko defal seen spray taalaan AC bi. su ko defee a sudden sa néeg bi yëpp change. so xale ñu ma jàngal leen and become very professional marketing uh, agent bi nga xam ne ne dooroon di liggéey si beneen compagnie si am na ñu nga xam ne Gamtel dañ leen jëloon am na ñu nga xam ne Africell ak different compagnie si ba hmm. ma amoon technical am moo wooy uh, ñu doon def preparation service hmm. ñu ma fa jëloon ñëpp kenn mosut am expérience boobu noonu ma ñoo jël leen train leen and na alhamdulillah most of them are there with their families and they're high up in the hierarchy either in the electronic service or, or, or um, um, after sales service. So mm -hmm. my use and opportunity bobu impact young people. And um, two years down the line, um, a garment company bought the company out. Mm -hmm. And then during that time, mm -hmm. I got a job offer at the um, American Embassy. Mm-hmm. te bu mu fa nekkee nag uh, man uh, education culture affairs assistant ak press assistant basically public diplomacy assistant laa woon te suma job mooy woon na basically pour introduce ñaar ñaari culture bi abu bu bi to the american um, community ma defoon fa ay jéego yu bari bari bari and uh, the most important one of the most important things su nga xam ne achieve naa ko foofu uh, man maa is the concept American Corners fii bu ma tukki woon dama tukki woon dafa naa Égypte laa demoon ma gis ñu def ko foofu noonu. ma ñëw baag wax ko suma supervisor si ni nag gis naa dara te loolu am ko bëgg a replicate ñoom ñu ne nag ok they can provide the books and the and the internet and the internet services but the place they would not pay for it. si laa jógoon nag fu naa yaa ngi yoon communion time boobu noonu. Mm-hmm. ma dem négociate waxtaan na ñoom ba gars yi nangu. te ñu am American corner boobu noonu te American corner bi became a lifeline pour Gambian su bari hmm. parce que si biir dañ daa mën a expression boppa duñ daa mën a am access to resources duñ daa mën a debate diggante youth si and we a space there and during that time nag um, I was able to reintroduce basketball in Gambia parce que hmm. time boobu basketball dafa deewoon totally hmm. um, ma again dem su suma supervisor which maa ngi ko bëgg a wax ne thank you very much ne basketball dafa amoon doole so léegi dama bëgg ñu dekkal ko waat mun how do you do that mu ne dañoo find coach bu nekk America mu ñëw mu train young people yi so ñu def application bi ñu am coach bu ñoon coach Davis the first day of registration pour pour players yi that day American corner bi dafa fees ba Mm. we had over 500 students ñu bëgg na dañ bëggoon a dañ bëgg dañ bëgg register pour the next day ñu dem training. Mm. so foofu la di baat of basketball jógee. bu loolu rombee nag basketball community bi ñu ne dañoo dem AGM. Mm. so man ma dem attend AGM boobu noonu. so unanimously guys select me based because of the experience I had to become the next president of basketball. and the funny thing uh, bu ma doon bu ma jëlee leadership uh, uh, mantul bi hmm. ma dem si account bi seventy six dollars rek moo fa nekkoon hmm. yàlla def it in six months man ak suma team were able to raise six about a million dollars hmm. ñu door dundal basketball bi so depuis that time nag la basketball di am league every year bi léegi man maa woon di only sport association bu nga xam ne su ma gars yi pour ma dem béykan yi laaj du ma daan nagu man maa the only sports association bi nga xam ne the the the former government didn't give us any money. Hmm. man maa the only association bi nga xam ne dama daan taxaw télé that government you must invest in sports. Government we need infrastructure to support sports. Government in sport is a business. Hmm. Of course, Ken um, Degluma. Ah. Hmm. Uh, basketball was was able to move forward. fu ma bëggoon a ko bëggoon a yóbbu nag mënoo fa because funds ñëwul so last year now this year I resigned. I ah, léegi gars ñu ngi try pour out keneen ku nga xam ne ne go to congress ñu am beneen njiit bu nga xam ne dafa ah, ron basketball bi waaye continue naa continue support basketball bi nag in my own capacity so my was also I was also the the the the the, the person who had a way compilation album Mm -hmm. Not to backway. Mm -hmm. maa gisoon tamit Bakuy baa ngi bari youths yaa ngi frustrate dana propose to the American embassy again ne eh? why is it's not duñ seet naka la ñoo isee ku nekk express sa sa understand of Bakuy si nga amoon ñoom Killa Is ñoom Broké ñoom Badabunka si lañ lañ defoon seen Bakuy compilation boobu noonu ma defoon ay jogu bari um, bu ma nekkee American embassy nag um, one of them is that I was able to help over 200 students have made Amnin scholarship them America. Mm -hmm. And helping sometimes is just about telling them how to go about with the interview. Mm -hmm. Telling them that before nga the interview da nga war da nga war def TOEFL. Hmm. Or da nga war def hmm. Or do extra classes so ko hmm. defee nga improve the SAT scores So it was as sometimes as simple as that. Or sometimes dama sometimes just nga ne xale You yow. yow da nga bëgg a lawyer The American law system bi ak sa bopp du o da nga bëggoon study medicine te the medical structure in how to study medicine in America ak bu Gambia du benn go to UTG story ko soo story ba pare mun ngaa dem so alhamdulilah am na students nga xam ne ne déglu ñen ma they are doctors or about to become doctors under the practicing lawyers and they ñu ngay dem America di ñëpp ni so those are some of things I did at the American uh, uh, embassy but uh, see, concurrently also many ngi amoon suma NGO called Yes Foundation youth empowerment through education and sports. Hmm. lu ma dee def rek use sports pour jàngal xale message. Hmm. Hmm. dama daan concentrate si malaria prevention. dama daan concentrate a lot in um, sexual sexual transmitted diseases. ma daan def dama dee jël sports. de diggan xale ñëw nak su ñëwee nag. intermittently ñu leen na jàngal message bi. waaw bu si famous nak moy um, diabetic prevention and awareness creation bi. lu def mooy ne. suba su xale ñëwee hmm. dañ dee am speaker bu nga xam dafa wax about five minutes hmm. about lan mandar mandar mandar mandar sample mandarga mandarga hmm. uh, diabetes so nek sa kër nga gis yi symptoms yi muy si yow muy si sa parents yi nga wax la ne ah dem la nga check su after speech bi nak luñ dé dar man nañ dee laaj xale yëpp ku bëgg test pour blood glucose sugar nga ñëw suñ testé ba pare then ñu ndéewoo dem def sports by twelve by twelve o'clock one o'clock the same people ñu wax ne leen ñu ñëwaat leen ngeen seet mm-hmm. results results déedéet dañ lay test ñu am results mm-hmm. ñu dem def exercise suñ ko defee ba pare nag ñu ñëwaat mm-hmm. ñu testaat leen so ku nekkoon six so exercise da ngaa gis mu dem four so automatically message baa nga fa na exercise is very good for diabetics prevention or reduction diabetes so ma ma def yàgg def loolu ah, boobu mooy Yates Foundation then ah, ma am suma global education center foofu tamit ama dee dimbali students yi ñu apply for schools and then léegi léegi tamit ñu am classes so yooyu laa defoon ah, suma jaaraat si education si ja si liggéey ba tamit um, just before my enter into mayor election for one year man maa doon coordinate the UNESCO media project bu nga xam ne ne dañ daan dañ doon dañ doon dimbali am um, some of the media houses in terms of equipment in terms of training. Mm-hmm. so yooyu yooyu laa am as experience ma um, uh, si suma working career. waaw léegi di nga gis ne yow sa xale ya mm-hmm. ak sa jaar-jaar. Mm-hmm. Uh, méngoo wul lu bëri ak jaar-jaari traditional saraxule bi. waaw nañu waxante dëgg. Uh, saraxule lu bëri. booy jàngal school weekend sax yaa ngi dugg si business bi. waaw wala holiday bu nekk yaa ngi duggante si business bi yaa ngi dugalante tuuti. te boo ne saraxule ñaar yëf la ñu xamee Gàmbi. Mhm. diine. Mhm. business. waaw ñaari yi foo wax saraxule ñu ne waaw. waaye ñu toog benn bés rek ñu ne politique. <laughs> ak Papa Ndiaye. ñëpp ràññee la si private sector bi. Mhm. ñëpp ràññee la liggéey ak ndaw yi. loolu kenn du la wax. kenn du la euh, wanalante si loolu Gambia mm. ñëpp xam nañ si loolu waaye politique bi dafa xala jële suñ maas yi kow parce que séntu wuñ ko woon. dëgg la gisuñ ko woon ndoo duggee si politique. am um, Arona sports dafa am politique. sa mm. biir kër dafa am politique. sa workplace foo dee liggéey dafa am politique. Mm. man ma gëstu ne ñun age bu am léegi. su dugutee su politique kana kana faa dugg defar ko suñ eeg léegi am nañ expérience bi am nañ connection bi hopefully am na intégrité bi def na mistakes bu nga xam ne ne jàngale si mistakes bi soo léegi ñu ngi suñ jamono ma léegi suma ma duggee politique ñu dugg di génn mun naa office bu nek mun naa dugg secteur bu nek dinaa fa fek suma morom hmm. mun demand ne Arona Dramé yo mi nga xam yo mi media specialist advise me as a politician hmm. ñoo bokk jamono hmm. door nañ diju ay dom to dom yo lek te ñu door du ay ay ay dom ñu nek ay site su ndugutee politique ñanay duga man suma jaar jaar qualify non non ah, pour ma nekk politicien hmm. parce que man dama yàgga ligue ak nit ñi ma yàgga di deglu nit ñi ma gis ñaa site ta hmm. ma gis site bu nga xam ne poverty la na poverty may hmm. dund dundal may gis suma suma xariti di dunda poverty may dunda suma xariti du am lu ñoo lekk suñ kër la ñoo ñëw ñu ñep ñu tok si bena bol di lekk over ten years may dunda bu nga xam ne ne suma par pa temps weeru koor guddi la naa ee eh, pour ñëw bu saaku maalo ci këri jàmbur yi ma dunda bu nga xam ne paa bi dafa gëmoon diine ma dunda ne as a childhood maa ngi gros léegi-léegi suñu plan football su ma daala ko abala keneen mu play football ma dunda xale ñu nga xam ne ne suba benn yoon rek lañ dee mën a lekk añ naa dimbale mu egg egg bu nga xam ne ne sant yàlla ma war a xañ expérience boobu noonu knowledge boobu noonu ak technical know-how boobu noonu Gambians loolu dañ ko war a stop ku nekk am na fa yàlla dugal hmm. yow mii sax yaa ngee politique you know yaa ngee génn di wër di laaj politicians yi di leen hold accountable lu ma fi wax tey in next five years ten years mun nga koo repeat su fekkee ne jalgati naa so ku nekk dafa am walla si politique bi o ku nekk dafa am walla si development of the country te development nag process la process bu nga xam ne da ngaa jubul waa jubul waay moo la na mu dëkk bi dem kanam fuy dem kanam tamit change boobu noonu mu nekk positif every single society uh, uh, members of the society am nañ wàll si politique am nañ wàll si développement so papa yàlla def ko def ne moom léegi gis ne fii la moom mun a defee maximum impact soo xoolee si baalal ma soo xoolee si mayoral e-, election bi dinañ ñëw si boobu sax ma nekk independent candidate waan nañ fa ñor ma la exemple rek eight thousand people votel ma états and people loolu du mën a wax dañ koo dégg and some dañ ma jàppee role model so man step bu ma jël léegi rek dafa war a nekk jàngal te xale ak even mag so loolu tax ma dugg politique ne we need to have people of integrity we need to have people who are able to move the country forward te su su duggee nag du neen bàyyi force da ngaa xee xee rek nekk sa hmm. da koo door di ko liggéey nanka nanka nga yóbbu ko foo mën a yóbbu su fa amee fekk groupe nga ñeneen ñu ñu continuer soo loolu tax nag ma dugg politique. am na solo foog naa foofu dina nekk uh, place bu ñëw mun a taxaw uh, jël suñ ñaareel noppaleku ba ñëwee waat uh, ñu gën a toj yaax bi si politique bi. dugg na politique door na politique mu ci digg politique bi. special interview la Paradise TV ak Papa Mouhamadou Ndiaye bu PPP. South Africa Global is pleased to launch Dalaba Housing Estate. Dalaba Housing Estate is our newest estate located on the Sukuta Jabang Road. You can buy a finished two or three bedroom house or service plots accompanied with a free fence and gate. At Dalaba Housing Estate, you get to enjoy bituminized roads, gated and fenced properties, solar street lights, water reticulation, public amenities, 1,500 fruit trees aligned in streets and many more. Make a 25% down payment today and spread the balance conveniently for 10 years with GTBank, EcoBank and TrustBank. Terms and condition apply. Wait, this is the best part. We are giving a discount on outright payments. For more information and exceptional service, please call our office line on plus 220 376 2333 or plus 220-776-2333. You can also visit our website on www.tapafricaglobal.com. ñu dalal leen waat Paradise TV special interview ak Papa Mohamadou Njie bu People's Progressive party Mister Ndiaye boo duggee si politique sa njëlbeen ñim ne daal Adama Barrow influence bi moo la jàppa yowet <laughs> nga màgg moom benn kër mhm. bokka lu bëri mu xëy rek nekk ca mhm. kenn sentiwu ko kenn gisu ko dafa jóg rek nekk ñu ne yéen seen maas yi ñu bari ñu dugga si politique after Barrow influence bi la because da ngeen toog ne ah kii su ko mënee nekk ñun nag ñoo ko gën a jàng ñoo gën a xam nit ñi ñoo ko gën a xam dëkk bi ñoo ko gën a bëri dugalante ñoo ko gën a am connection international yi kii bu mënee nekk président ñun lu ñu xañ nekk président ndax loolu influence la sa yow. am lenn moo influence na ma moo bu change of government amee. ma gis ne man tamit am naa am naa erreur bu nga xam ne mën naa contribuer ñun dañ la Barrow campagne ko campagne bi bu safa saf ñu képp kon ñëpp kontaan bu changes amee gis nga leadership du ne man maa la gën a jàng leadership is not about only education leadership du du is not about only connections leadership one of the cardinal rule of a leader is integrity integrity dafa important. and that time Baro integrity lañ ko lañ gisoon si moom. Hmm. that time. waaw parce que legui I have to be very careful because time bo wonu Baro dama ko xamone bu baax legui president la ñepp ko mbokk. Baro bu ma xam. time wo integrity bank baa ngi fa woon. te integrity du tok ben bes change ma gis ne tamit KMC. dafa soxla ñu nga xam ne ne am nañ kii si at xaat dafa soxla ku nga xam ne tamit time boobu noonu ku nga xam ne am na clear agenda bu nga xam ne su ko su ko fa tegee dinañ mën a support the development of KMC. ma dugg nag dem wax ko famille bi ne ah léegi seen doom dafa bëgg a dugg politique ñu jaaxle lool. waaye after discussion after mu ma la wax lu ma wax nii. it's my right it's my obligation i ma amee technologie bi pour going to contribute to KMC development so no laa duggee foofu noonu waaye eh, Barrow ok nit voté and take off but there are some elements of divine intervention a little bit and Baro came at the right time when everybody was fed up we needed change and he was brave enough to jóg defa eh, defa turam éducateur public yëpp ñëpp ñëpp a ngi fa woon waaw ragaloon so loolu rek mën nañu wax ne Barrow jàmbaar la try na when everybody was scared moom dafa jóg taxaw loolu kenn ko mën a xañe waa démocratie dafa laaj nag nga am enough place to hold everybody accountable because Barrow nekk na président rek te ma nekk am mbokkaam waruma enter into politics xëy na su enter into politics mooy development mooy dimba mooy dimbale euh, government of the day because we hold them accountable moo ñëw si tuuti rek opposition do ne da ngaa criticize always opposition da ngaa nekk watchdog opposition da nga war a nekk ko xam ne government su lu moo liggéey nga bàyyi ko xal su jalgatee nga mun giine ne government jalgati nga lii nga ko war a na nan la nga ko defee wu respect man soo xoolee suma politique even mayor elections man musuma saaga kenn musuma against anybody I come and talk about lan laa bëgg a defal KMC même yow soo defee mistake sax dinaa wax ne su nekkoon man Papa Ndiaye nii laa ko defee government dama foog ne loo leen def correctut yi ngeen ko war a defee soo ne nit baaxuloo def loolu baax yow lana sa solution su fekkee ne government Gambie bi moo la tax a jóg lii dafa war a nekk jàngat su everybody waaw government suñu amee problème suñu defee mistake waxal waxal waaye yow ban solution nga am su ko defee government bi déglu la su ko defee waaw su ko defee population bi déglu na a ah, kii de moom su fi nekkoon moom li la moo def même su ko government bi defutee sax nga def ko soo man fu mu nekk nii dugg naa politique cundum man si biir biir a biir te fii ba yo ah, fii ba last day bi man si politique last day bi critique yu bari ñu ne papa dafa inconsistent papa jóg na mun UDP <laughs> papa jóg na mun a independent papa jóg na mun a PPP si diir bu gaata papa nag fan la dëkka papa mu nga dëkka biir Gambia Gambia mu moo tax a jóg xaalis ma maa jóg féem taxul maa jóg yàlla am na lu ma jox te loolu laa bëgg a Cheikh Aga di xaw a jaaxal tuuti su ma jaar-jaar ak PPP dafa leeroon nañ dama dem foofu noonu ma gëm ne ne su ma fa demee dinaa mun a am ticket bi pour mën a si su ideas yi idéologie yi bokkuñ ma def lu nga xam ne ne nit nit ku maccoo loolu la moo def soo bokkutee nit ñi idéologie ngeen dem ba si kanam nga resign dama resign with dignity resign ma ak mer mais saa saa si yàlla tey I have very good working relationship with with with um, UDP. UDP waaw. te ñu ma ak ñu ma ñu ñu ma doon ñu ma campagnal si élection si mayoral élection bi. UDP lañ. ñu ma votal UDP lañ. politique dañu war a bàyyi ne because of politique rek kii dama kii he is enemy. ma joge foofu dem independent candidate. Hmm. independent candidate par la far. independent la it's for a short period ma jeexal election ma jeexal euh, ma mayor election I came third ma toog six months di analyse my life nga ne politique bi daal du ma ci génn du ma ci génn léegi ma xool political parties yëpp bu nga xam ne ne ñoo ñoo ma doon support taami taami campagne fu ma dem gaañ fa du la sanc suma parti su ma sancee suma dama selfish su ma sancee parti dama selfish parti yaa fi te PPP parti suma sum sum famille bi la suma papa was one of the key uh, financiers of that party te toppa nañ ma si campagne bi so ma xool parti si yëpp hmm. ten ma designer maa dem PPP ma dem jënd ma dem suma suma membership card gars yi welcome ma gaa tegal ma ne tamit dina am uh, con uh, te position boobu mu fa. te gis gisangu ma ñan ñu apply foofu noonu. xam nga interest su temps bi jotee nga apply. te pipi suñu philosophie mooy ku ñëwoon démba. ku ñu ku fa nekk hundred years ak ku nekk ñëw tey wa école. soo xoolee taraki PPP loolu moo fa mus a nekk. soo xoolee Jawara nu naa naan appointé ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata nit a jógee yeneen parti UP ak or parti ñu NCP ñu ñëw PPP bari nañ. ci delluwaat ne Papa Daf lay da da is not consistent ñaata political leaders yi ñoo jógee yeneen pati dem si beneen parti. most political parties ah, political heads te dama dañ afam parti bu ñu nekkoon. nit ki soo ko buggutee bugguloo ko soo ko supporté supportuloo ko waaye bu ko tuumal nga xam ne nekku fa ñeen ñëpp xam nañ Papa is person of integrity. ñëpp xam nañ papa daf fi nekkoon balaa ñu ñu bëri di fi nekk ñëpp xam nañ papa Ndiaye fa campagne campagne bu set ñëpp xam nañ ne PPP is papa's father's ñëpp xam nañ ne family papa Ndiaye PPP lañ jógee ñëpp xam na ne su papa su war a delluwaat si parti bu la war a dem. mooy kër mooy kër du lu paa day wax rek mu ne sa kër su lakkee. ba tas da nga day dénkaane sa doom yi da nga day dénkaane sa bagage yi su la bi ko samp ba mu jógaat da delluwaat ñëw sa këri baay nga ñu tasaaroo woon nga isla nga ñëw loolu nga def PPP loolu la PPP te loolu maa koo def xam nga balaa balaa maa nekk euh, di secrétaire général doo daan dégg PPP daanaka PPP was almost dormant waaw foofu la wax bi nekk ñu ne parti yu nekk fu mu ne nii hmm. soxla nañ deret bu bees. waaw soxla nañ ndaw yi. Mhm. seen tànki tubéy yi bokk si politique bi yëngu ci parce que kattan bi. xale yaa ko amee. waaw xam bi xale yaa ko amee. bu loolu amee war nañoo mën a jiite ay pati waaye lu ñu jaaxal nag. Mhm. ñu ne papa dugam PPP ak nekk PPP moom moo OJ ñoo mankoo nekk benn si euh, mag yi nekkoon PPP yëpp kenn kenn kenn àndut papa. moo tax nag xaajaloo bi am parce que ñoom luñ ko xoolee mooy xale bi démb rek mu ñëw xëy dugg si parti bi rek bu nga ñëw ilif ñun loolu duñ ko fi nangu. dina moo indi xaajaat la. Ah, ma ma laaj la rek Saa Daawuda Jawara. Hmm. naka la ñëw PPP. papa non dama laaj exemple. <laughs> rural ga pharmacie. Hmm. po nit ñi ñoo samp PPP bem bem bem correct. ñu indi ko ñu ko ñu isu ko. Hmm. mu jiite mu jiite. te temps boobu ne dew he was around thirty something years old paa yuy wax ñu ñëpp buñ doon nekk buñ nekk ay ministres ay ay ay ay vice président ay xale yu ndaw ay xale yu ndaw lañ nekk leen wax tamit ne congrès bi du OJ vote du paye vote fifty three constituencies in Gambia ten délégués lañ jël fu nekk gaa ñoo vote tëgg la gaa xamuñ ma waa dégg nañ ma dégg xamuñ ma waa gis nañ suma jaar-jaar nañ bàyyi di personalize li euh, euh, leadership ñu suma ay ay papa lañ suma ay xarit yi papa lañ xarit very close members of my family kenn ku daf dañ bañ beneen suma papa daf ko ture doom man lu ma laa a wax rek sometimes change dafa métti non su fekkon nañ amon nañ kuñ bëggal mu taxaw na ko ñew it's open it's open everybody everybody had the chance honor bibi bi daawa na chance mu ñew su congress man ben wax laa fa waxoon si délégation moy won dama né you have two options fo su fekkee ne da nga bëgg kanami PPP bi rek jox kanam bi il vote for vote for honorable Bibi Dabo waaw soo leen bëggee parti bi dunda tey ëllëg ak gannaaw ëllëg man maay face boobu noonu man la ndaw yi xam man la ñi nga xam ne ñu ngi fi 22 years man lañ xam te am na benn wax bu ma la bëgg a wax soo yoddu jax soo saxat te ñu ngee yoot te saxatuñ hmm. ñu ngee def suñu liggéey te saxatuñ ndax mag yooyu kilifa yooyu noonu nga xam ne bokkoon nañ ci fondement yi parti bi sax naam kenn déggul leen si lu toll si ñaar fukki at ak li tege waaye léegi ba ñëwee bu ñu wàññeekoo si yow ndax du am luy yëngu si taax bi nga sampa noonu pipipi taax boobu samp nañ ko bu yàgga te taax boobu noonu du ñoom ñoo sampa de du yëngu de taax boobu mënut a daanu rural people rural Gambien ñoo ko ta ñoo ko tabax fondement bi du yëngu fendos mu dafa dëgër trop dafa dëgër te kenn du ko mën a du ko mën a yëngal dafa yokku keroog laa demoon benn radio interview hmm. si suba between twenty minutes hmm. ñaata over ten jigéen ñoo call from rural Gambia ñu ne xamuñ la de waaw kon ka ñëw nga ñun bokkaan ñëwaat nañ PPP ñu wax ne ba ñam parti jógee ñu ñëw kenn ki moom mu ne waa ba tey rek man maa ngi si benn pati waaw maa ngi laa gestu. Hmm. ba pare naa ñëw. xam nga ñaata youth laa dee engage e, e, e, um, every weekend ñaata xale ndaw ndaw laa dee engage dafa bari waa ñun dañ dee génne si biir ko waxee suma objectif léegi mooy defaral structure si ko defaree ba pare ma door a génne koto yi nga xam ne ne demoon nañ. Hmm. mag ne naa wax ne man sa ndoom laa lii la yàlla dogal lii la ah, ah, ah, congrès bi lii la dogal ñëw la ngeen jàppale kër bi kër bi man moomu ma ko kër bi ñëpp a ko bokk su fekkee ne PPP nga gëm man waruma tax nga bañ a ñu PPP ku nekk am na fa liggéey bu moo mun a def ku dem tamit ma xam ne démocratie loolu la laaj soo àndee nit ki ba si yàgga gëmuloo lu mu da dem fam su own parti hmm. te di ñaanal gaay all the best hmm. dina tamit li lañ soxla démocratie wa di wax ne tamit man Papa ndjay duma duma duma laka le fin bridge bi de hmm. duma daanal bridge bi diganté man a political parti si du daanal bridge bi diganté suma koto yoy non parce que hegna na nañ ma soxlawaat xëy na naa leen soxla moto do mu mës diga man na criticize any of those um, elders doo mos a dégg man ma critiquer in political party. saa ñu bëggee delloo si mun nañoo ñëw. waaw doo leen xañ dara si parti bi. waaw ba pare political party su nga xam ne ne ñu ngi fi du ma bon bridges parce que ñëpp lu ma gëm mooy Gambie mu ñu tax a ñëpp dañ gom ne suñ amee government bi dañoo dañoo développe Gambie su fekkee ne ñëpp a bokk benn objectif. ñu ñu ñoo duggee si bunta bi utee. su ñu ut suñ duggee si bunta bi kenn mooy dugga. su keree ko ko duggee ñu respect ko ñu woon ko ne defal sa liggéey su ko defutee ñun ñu ngi fi su ko defutee ñun nañoo voté si ki deful liggéeyam ñun jël lañu ñun ñoo mën a def liggéey bi dañu war a changer ni ñu defee politique bi. Hmm. te naka lañ ko changer young people yi foog nga ñëw educated people foog ngeen ñëw suñ génération la nañ fi nekk ne rot 20 years duñ relevant. loolu am na. Eh, waaye mister ndiaye politique bi ak nuñ ko doxalee léegi am na ñu nekk si biti ñoo xam ne ñu ngay seet ppp ne ppp mm-hmm. sax mun nañoo wax ne moo indi independence gambia ppp sax lu mu fi def si galoore jaloore kenn munu la koo limal sax waaye ba tey nam jafe-jafe yu dëkk bi am yaa jaame si boppam ppp ñoo ko bind rek indi tegal ñu ko ñii ne si naka ñu lu fi nekkoon si lu jubadi dafa bëri woon li fi nekkoon si yàq dafa bëri woon li fi nekkoon si kabudu dafa bëri woon lu fi nekkoon si man la suma xarit yeeg suma mbokk yi suma am di jaama yi dafa bëri woon ba nga amoon xaajaat loo amoon na mm-hmm. boo nekkee ministre sa doom yi ñooy dem si school yu gën a baax yi ñooy jàngee si biti ñooy am opportunity baax doola bi kenn faaletu ko kenn yëgatu ko ñu ne yooyu nag dafa bokkoon si bàyyi loxo bu pii PPP daf loolu mooy woon sababi 94 mm-hmm. ak Yaya Jammeh léegi yow boo buggee dekkale parti boobu lan ngaa wax nit ñooñu nga xam ne ñu ne musiba bi gën a métti si réew mi yéen PPP yéen a ko fi indi. man nangu na musiba bu fi gën a métti PPP ñu ko indi waaye lu ma bëgg a wax mooy ne nit nit sax da ngay jur mag dee oo dem ba ba ba xum nga dem ba ba amoon na time am na yu ñu waroon a defuñ ko te dëgg la. man bokkuma si génération boobu noonu this is the new PPP this is the PPP of our generation this is the PPP bi nga xam ne ne di di di di di dictators of democracy dañ ko continuer PPP they were very democratic they respected human uh, human rights but hmm. towards the end paa bi dafa soonoon mu bugg a bàyyi mu nga xam ne gaa yi ne bu mu bàyyi hmm. ki nga leadership suñ ko defee yàlla rek lii moo dee jur psychophanzine ba pare góom ne ni ki su fa nekkatee dara du baax ñun PPP bu bees loolu de dañ gëm ne ne I am the servant of the people man personally dama gëm ne ñëw ma fa pour ut xaalis dama fa ñëw make some structures ba yaa ngi implémenté dama ñëw bàyyi fa structure bi nga xam ne su fa Papa Ndiaye ko nekkute keneen na fa nekk dama ñëw make sure ne ne constitution is very clear on it na da term limit nga faa am constitution bi two term three term ñoom ñooy decide dama ñëw pour mën a ñu decentralize the powers of uh, uh, of the uh, of the party leader dama ñëw pour make so opposition manœuvre jàng fa mu leer ku ñëw tey soo ko leader di nga xam ne ne yan jéego nga war a jël su fekkee da nga bëgg a challenge for the leadership of the party su fekkee da nga bëgg a impeach party leader it has to be clear tax nga li woon problème hmm. civic education lañ laa koon civic education jàngal nit ñi loi bi jàngal nit ñi lan la miin nga nekk Gambien jàngal nit ñi luy national anthem xam nga lu tax national anthem nit ñi am national anthem pour woy ñu bëri noonu lañ ko gisee te Gambien ba mun national anthem bi sax dafa bëri wut man lii moo ruslu gis nga national anthem mhm. time boobu noonu su ko woyaan dang daan dang daan dang daan compté ba bugg a jooy mhm. dang pare ne góor laa maa ngi bugg dem guerre dans son antenne dafa la wara a dafa wara sok say ko déggee dafa war a génne dara su yow. dafa war a génne ne man dama pare pour def dara. xali yi xamatuñ lolu demoon naa Malaysia 20 uh, twenty years ago. ñoon sax lañ ndaw yi sax nursery school dañu dañu read dans son antenne. not only read but understand what does it mean. mu nekk ci xol wa for the Gambia our homeland. man beto suma su ma national anthem bi dama dee feel dara. bobu dañ ko war a delloowaat. mooy jaloore waaw. mooy fonk sa réew. mooy bugg sa bopp. waaw xam sa bopp. loolu la ko war delluwaat. xam li nga war a doon. waaw biir réew. lan mooy corruption lan lu tax soo sànneen tilim waroo koo sànni lan la soo koo sànnee ku la gis war laa war laa wane for ko lan soo gisee investeur bu ñëw ni di polluer suñ suñ biij bi nga am fooy jaar pour report ko yow mii nga xam ne yaa liggéey nga make sure the interest of the country is protected. loolu lañ amatut being a Gambian loving my country being truthful for the Gambia our homeland loolu am na solo euh, ñu jël suñ noppaleku ba mujjee buñ dellu waat rek ñu tëj waxtaan bi xam naa ne euh, li des léegi bëreetut waaye ñu ngi dellu si nii ci kanam tuuti rek incha allah Africa Global is pleased to launch Dalaba Housing Estate. Dalaba Housing Estate is our newest estate located on the Sukuta Jabang Road. You can buy a finished two or three bedroom house or service plots accompanied with a free fence and gate. At Dalaba Housing Estate, you get to enjoy bituminized roads, gated and fenced properties, solar street lights, water reticulation, public amenities, 1,500 fruit trees aligned in streets and many more. Make it 25% down payment today and spread balance conveniently for 10 years with GDBank, EcoBank, and TrustBank. Terms and condition apply. Wait, this is the best part. We are giving a discount on outright payments. For more information and exceptional service, please call our office line on plus 220-376-2333 or plus 220-776-2333. You can also visit our website on www tapafricaglobal.com. ñu dalal leen waat fii special interview ak papa Mohamadou Ndiaye parti leader bu PPP Mr Ndiaye eh, politique nekana lo loo xam ne man daf ma neex suma xol góob ma musa nekk politician. waaye di leen seet yeen di naw si yéen di jàngee si yéen di leen xoj sa léegi-léeg mm-hmm. pour ngeen wan seen ay kaddu ak yooyu lu ma neex la waaye leena lu manqué si politique yi Gambie man nu ma ko seetee mooy dégg ngeen day tourné sànni leen ma sànni leen ma sànni leen ma doo leen ñu jox leneen lu utee lu fi nekka tey buñ la dénkee réew mi yow lan ngaa def lu uteeg lu président Barrow di def lan ngaa def lu utee lu Yaya Jammeh def lan ngaa def lu utee lu Saa Dawda Jawara def Gambie buñ soxla tey yow ban jéego ngaa jël pour make sure ne loolu am na te dina ute ok jërëjëf ah, gis nga démocratie process la da ngaa jóge fii di dem nanka nanka nanka nanka wax ni lu misani Gambia better planning foog ñu plan better te planning bi nag du technocratie ñoo war a toog foofu plan ko rek every single sector in the society am nga am nga si léegi nañ jël Gambia eight regions la amee mu hmm. léegi lan moo competitive advantage. région bu nekk région bu nekk ma jox exemple rek North Bank. Hmm. North Bank foofu traditionnel dañ lay béy gerte. Hmm. suñ plané properly. ñu prioritise prioritise mooy lan. bi lay number one bi lay number two number three. ñu am will bi will doora ko si yow doora ko si politicien bi government képp ku nga xam dama am will bi dama pare pour liggéey soo amee loolu nga am national dialogue ñëpp a see bokk te buñ fàtte ndaw bi ndaw yi dañ war a nekk si decision making table boobu noonu su ñoo waxtaan problème yi Gambia ndaw dañ fa war a nekk disabled dañ fa war a nekk jigéen interest group dañ fa war nekk imaam yi dañ fa war a nekk local chiefs dañ fa war a nekk civil society dafa war a nekk media bi dafa war a nekk environmentalist bi dafa war a nekk civil engineer bi dafa war a nekk ñu xool Gambia dogat dogat ko North Bank exemple laa la naa jox rek dañ dee gros gerte te time during during the PPP region yields were higher te ñaar export lu bari dañ am high value ah, ah, ah, peanuts hmm. ñu seet léegi naka la ñoo investé ba nga xam ne ne North Bank dañoo gën a mun a produce gerte hmm. naka la ñoo make sure ne xale yi ñu jógee North Bank ñu jël scholarships ñu mun a jàng agricultural science hmm. ñu mun a mun a jàng agriculture agriculture mécanisation ñu jàng irrigation ñu make sure foofu am na lopitaan bu nga xam ne mën naa service ndaw yi ñu meeg su ne yoon yi foofu noonu baax nañ fu ko xam su ko defee xale duñ bëgg a ñëw Kombo ñu meeg su ne aménité su nga xam ne xale dañ ko war a am young people dañ ko war am foofu ñu def ko fa ñu am plan xam nga wax ne um, in in addition to better planning hmm. every single sector in Gambia youth development and dafa war a dugga not only loolu specific youth policy dafa war a dugal secteur bu nekk. comme naka. am naa jox exemple nañ se sécurité sécurité secteur bi fan la ñuy jëlee seen ndaw yi quand même population bi nañ ngay jël naka lañ lay recruter dañu am clear policy su nga xam ne ne dafa target young people yi how do we do that hmm. resizing of the security for security sector. research moo ñu xool dëkk bu nekk population bu nekk di nga xam ñaata security officers nga nii. papaas waaw ah papaas. waaw ñaata nit benn security. waaw it's coming back to uh, ma suma suma liggéey suma wax civic education. Hmm. imagine léegi security sector reform bi benn si agenda bi mooy ne dañu am security training college in Gambia képp ku xam ne da nga bugg a nekk security officer da ngaa jaar college boobu noonu. daanaka one year two years three years I don't know ñoom experts ñoo ko war a decide su fa demee dañ ñaa jàngal constitution bi dañ laa jàngal sa rôle dañ laa jàngal how do you intervene with people dañ laa jàngal crowd uh, um, um, uh, crowd protection dañ laa jàngal why is it what does it take to be a Gambian dañ laa jàngal lu tax corruption baaxut baaxut dañ laa jàngal nga understand economy naka la naka la corruption di affecté économie they become professionals fu ñoo jógee suñ su ñoo jàll three years college boobu noonu they have their diploma or they have their bachelors su mbugutee dugal security force ñu dem feneen waaye dafaa fekk prepare nañ la xam nga very specific hmm. ñu dem si agriculture hmm. um, uh, CRR foofu la river Gambia bi nekk foofu la sweet water bi nekk hmm. and CRR the known for growing rice du tax ñu am spécifique am am am police yu nga xam ne ne si arala moo target naka loolu di utee jaaxale Pàccaar projet bi. ñu revitaliser ko waaye jaar Pàccaar projet fa amoon problème. start on a very good. ba tey problème am fa ba tey. xam nga jekkale wuñ ko. jekkale xam nga affaire si. sa local resources ko jàngalutee. li ñoo sustain foofu noonu dafa affaire development one of the areas of development to create conditions for sustainability. développement dafa laaj tamit nga look at environmental impact développement dafa laaj tamit nga xool yan resources nga am nga liggéey ñoo ñu ba nga mën a grow suñ jàngaloon nit ñi ñu dëkk ñu dëkk ama CRR rice irrigation mechanization efficient usage of the water nga xam na du pollute du du am un negative environmental impact ñu jàngal nit ñu nga xam ne dañoo add value to those products doo soto structure nga xam ne ne mooy tax ndaw yi stay foofu noonu ñu def ko dañu am clear plan na every year they need ten uh, hundred students or fifty students because this is this is the target output developmental policies dañ ko war a taay with a future uh, workforce demand lan laa min foofu noonu su fekkee ne Gambie dafa bëgg a nekk a uh, value added am am economy or dafa bëgg a um, dafa bëgg a nekk um, a financial center oo dafa bugg a nekk transshipment um, um, um, uh, country te ñoo jël ndaw yi from high school ñu dugal leen si ñu jël leen scholarship ñu dem liggéey ñu jànge suñ jàngee ñu ngee ñëw ñu ñoo ñëwee ñu ngee maan secteur si and then maa ngi wax leena the will has to be there how do you make sure ne ité bi mu fa jàngale bugg nañ ko jànga nañ ko def civic education civic education moom fu mu nekk nii waru faa nekk dañ ko war a génnee foofu nu jox ko civil society bi. fu ñu ko dugal da center for civic education am na. waaw suñ ko fa génnee fu ñu ko dugal. suñ ko fa génnee jox ko civic eh, ñu jox ko civil society bi ñu tënd ko jox leen ko na this our target ñu door ko from nursery school ñu jàngal nit ñi ba pare ñu dugal ko su su national curriculum bi. xam nga ne kon ñu jébale ko ministry of education. déedéet déedéet mu nekk si koo eh. we need independent body pour implement loolu civic education baa ngi fa through school si mm-hmm. civic education beneen bi mu fa pour jàngale Gambian population bi waaye am nañ Gambian studies léegi non non it's different it has to be a proposed civic education curriculum a clear curriculum bi nga xam ne dañoo dooree from nursery school di lañ jàngal it comes back to the national anthem curriculum boobu dafa wan um, a jox example what is what the impact of corruption hmm. the impact of nepotism te ma bëgg gis bu nga xam ne suñu la laajee rek da ne man Gambien laa doo ne man saraxule laa nga bëgg koo xajaane waaw gis na national anthem boobu sax loolu mun naa créer loolu léegi nit ki su ne dafa ñuul dafa ñuul lu ñuul la lu ñuul la lu ñuul su yàggee yàggee mu nekkal lu ñuul nga gëm lu ñuul la mbir bi am nañ rôle tamit we do the simple things first. Mm. Civic education, looking at the whole uh, country, mm -hmm. looking at the operational manuals. xam nga yenn dëkka every single person da nga am unique number. Mm-hmm. boobu moo laa toppa bi ngaa dee. fii sax am nañ ko di. waaw boobu de tin nombre bi tin nombre bi it's not efficient. gis nga unique number boobu noonu. Hmm. soo demee loppitaan hmm. tag unique number moo fa nekk war a nekk. Fonatir bi loolu mooy jubluwaay bi day am. is it been implemented naka database bi. every single sa TIN number boobu noonu daf laa topp ba nga dee sa TIN number boobu noonu moo nekk sa sa boobu boobu ngaa pour vote sa TIN boobu boobu noonu soo demee loppitaan su ndugalee sa nombre ak sa TIN number boobu rek sa database bi dafa war a ñëw. sa insurance sa driver's license bi sa car insurance bi sa tin number ba fa nekk loolu su ko xoolee indirectly su fekkee sa insurance um, sa insurance bi sa tin number ba fa nekk oh, sa number plate sa tin number fa nekk te ñu am technologie bu nga xam ne koo mën a su suñu suñ suñ stoppé véhicule that belongs to you and somebody is driving it suñ ponco ine sa sa sa sa sa number plate bi rek mais ñaame xaaroon na drame moo ko war a dawal ñu laaja sa sa driver's license Ah, suñu ko de no raban dañ la laaj ah lu ta nga dawal auto bi suñu police mënuñ internet nunu sax te buñ ko mëne sa amuñ internet bu buño dox ak mbéda bi taxit mané euh ah, security lañ college suñu important motax motax ma xamne e governance dafa important motax mané na dañ wara am national dialogue motax mané na dañ wara xolaat gambem day dissect motax reforms dafa wara nek real reforms so di mëna def yépp in in in one sitting government benn government du mën a implémenter yëpp. suñu amee national blueprint bu nga xam ne ñëpp a si d' accord. bu nga xam ne am na national development plan. waaw plan bi la. this is different. Hmm. this is gonna be apolitical. Hmm. or yow yu sa vision 2020 national development plan bi ñu isi waa ñëpp ñu toogaat si ko table bi. journaliste bi dafa faa nekk young student bi young youth bi dafa faa nekk environment bi la faa nekk ñu clear this it's not by team. is by region CRR North lan lañ fa bëgg a doomi CRR de lan ngeen bëgg a CRR waa Basse Basse it is supposed to second capital ndax soo bëggee ID card foofu da nga ko mën ko defee ñëpp gis fa seen bopp. waaw. mu am that national pride national sense of belonging si document nga xam ne bu président bi wéccee sa keneen kuy ñëw dafa continuer fa kii amoon. su nekk ne lii baroo moo ko moom. loolu laa bëgg lii kii moo ko moom lii problème bi. parce que foofu foofu la ñu toll affaire si c'est problème. parce national development plan yow boo nekkee président na nga koo sànni si biti nañu waxante dëgg. ah man nag dafa ute. ne 2021 yow nga nekk président tey. national development plan noo ko xoolee. lii plan yi baro ma man lu maa def. waaw national development plan bi. vision 2020. waaw pour bi working document. waaye ñëpp a ñëw toogaat. su leen su leen neexee sax politiciens yi ñu am si tuuti sëy They can be talk. ñu xool development plan in the next twenty years in next fifty years China doesn't come. like hundred years naka lañ bëgg gis Gambia man tuuti tu man dama bëgg a Gambia nekk like a, a, a small financial center, a financial center in Africa, in West Africa. Tambabuga, every single person, you have the opportunity to create a living. Gambia for tutti. Lolo yep amna. Why, Mr. Njai, man yéen politiciens yi fi ngeen ma dee jaaxal mooy. Mhm. boo ne PPP tey ñëpp ne la Papa Ndiaye amuñ keneen ku ñoo joxoon biir PPP. boo ne GDC tey ñu ne la Mama Kand boo NRP ñu ne la uh, Hamad Ba boo waxee GMC ñu la ah may Ahmad boo ne doy ñu ne Sidi Khalifa lu tax yéen politiciens yi doo leen am government bi ngeen a sànca si biti government bi. ngeen am seen ministre yu taxaw bu ko defee ñi leen a toppa ñëpp xam ne PPP buñ gañee tey seen ministre of finance ngi nii shadow government shadow government mm-hmm. seen uh, ministre of nii seen ministre of interior ngi nii bu ko defee li xew Brikama mm-hmm. bu xewee be ndaw yi gën a nekk si mbedda bi mm-hmm. bu ministre Mballo taxawee di wax si turi government bi tey yow tam sa ministre bi génne ne déedéet suma counterpart bi yow mi nekk si biir government bi ni nga xanulee Brikama du woon noonu man bu dee maa nekkoon sa place tey bi nga xam ne boobu laay xaar sa pour dil fa mhm. man nii laa ko doon defee te moo gënoon si réew mi doxali ni politique deret bu ees bi ngeen indi si politique yi Gambia deret bu bees boobu dafa war a méngoog jubbalin bu utee doxalin bu utee ak jubluwaay bu utee 65 percent Gambien yi ay ndaw lañ ndaw ñu jàng ndaw ñuy seet Rwanda ndaw ñuy dem Accra ndaw ñu xam lu ci xew sa Ethiopia ndaw joo xam ne one minute lu xew sa Soudan ñu ngi koo seetlu di seetlu seen morom yi seen nawle dañoo def léegi yéen politiciens yu ees bi ana ay dee yu ute yi doxalin bi fa mu ute. mu utee wut ñu am yaakaar si yéen tam. laa doon rek. Arona man Papa Ndiaye de moo tax man générationnel la nooy xalaatee noonu noonu laay xalaatee. ñun dañ ko dooree wu spécialiste secteur spécialiste. Hmm. kii mooy spécialiste fii ne te secret ñu am bugg ma ko wax yëpp si télé bi eh, si télé because sometimes it's internal. Hmm. waaye yoo looy xalaat la la ñoo xalaatee. pare ñun dañu am succession plan ni nga xam ne ne nit ñi nañ fa nekk su fa Papa Ndiaye nekkutee ñu mën a continuer. lu ko ba pare tamit it's not about Papa Ndiaye. Papa Njai is the leader, yes, but it's not about Papa Njai. It's about the people of the Gambia. Why the only problem we have is young people are too scared to enter. yaa ngi ah, ok baale la ma. <laughs> ñu olofal tuuti. affaire man tey maa ngi dem si ndaw yi di len di wax ak ñoom. di leen convince loo wax ni na su fekkee da ngay bëgg a ceeñ. ñu da ngay laajte ñoo la ngeen ma jox la leadership role ñoo la ngeen déplacé ngeen maan ñoo la ngeen xool ma accountable ñoo la ngeen su fekkee ne journaliste nga nga ne nga nga nga nga topp journaliste journalisme secteur bi su fekkee ne yow agriculture background nga nga ñoom ma dugalal foofu noonu ngay wan ngay collect data information ngay create policy documents yi su ñu agriculture léegi su ma gëstu agriculture am expert banque fa because it's too early call them ministers. Mm-hmm. I call them te loolu naka lañ ko mën a amee xale yi. démb maa ngi demoon si benn um, workshop maa ngi fa def benn phrase ma ne leen if you do not understand soo xamutee naka ngaa laajte pour danga nga ñu change naka nga buggee change soo xamutee yëpp dafa ñëwaat back jàngale jànga ne da ngaa toog classroom jàng la fa miin da nga fenn foo nekk mun nga jàng da nga la fa ñu nga xam ne am nañ xam-xam bi ñu génn si nit ñi suñ ko laaka si olof suñ koo laaka si soose suñ koo laaka si beneen laaka yu def ko continuously du damaa ñëw train benn benn benn weekend rek mu jeex ma dem non mm. loolu la dem te gis naa ne african si lañ bëgg a loolu workshop one two months three months mu jeex non non mm. dafa war a continuous ba nga xam ne ne da nga koo gëm mm. nga believe ko loolu suñ ko defee we have a chance we have a chance li xew si dëkk bi bëri na mm-hmm. nañ wax ne président Barrow def na ñaari at ak genn wàll ak lu ko ëpp sax léegi mm-hmm. ñu si ñettali at ki sax yow boo ko doon seet tey nga ne Barrow si biir fukka bi laay seet fan laay natee Barrow foo ko boole ok lii laa ma ko some months ago mm. um, ma riitoon ko seven out of ten mm. waaye recently mm. because yu ma jot a dégg di di unrest tamit Killa Ace ñu ko arrest. xawma luy problème bi nag xëy na right bi la. waaye nañ make sure nañ jokkoo his um, right. mooy seventy two hours yi. su su boobu jotee nag ñu war nañ ko yóbbu koor ñu release ko. Barrow I think dama dinaa ko downgrade def ko six. you know Mm. because communicate ut lii daal nga war a communicate in any language nga war a communicate mm. su communicate ut sa advisers uh, ministers yi dañu war a communicate regularly mooy déggoog nit waaw dialogue dañu war a dialogue regularly mm. dañ war am plateforme bu nga xam ne ne keneen moo keneen keneen keneen du ko manage ministre bi every every week benn ministre faa jóg mu toog waxtaan ak nit bu dee si rajo laa toog sax. it doesn't matter mun naa dem si Bantaba toog. ñu organise ko. meet the minister. discussion with the minister. meet president. ñu informalise ko. suñ ko defee nañ ci jànge lu bari. man dama gëm gëm ne li ah, suñ leaders yi sometimes suñ advice suñ niñ ko dee jox moo moo du dee correct. ñetti at juróomi at. foo tiyee yow. Ah, man currently ma am part of the coalition. te man ma gom gom procédure. coalition meeting bu ñu amoon dañ ne suñu agree on on a point moom mu génn a ah, ah, coalition ci mu génn wax. loolu dafa très important waaye di wax nit ñi ne man Gambie laa gis. gisuma coalition bi gisuma président Barrow gisuma PPP. man Gambie laa gis. su ma gisee Gambia ne first thing lu lu lu ñu ñëw suma xalaat suma xel lan mooy jaami Gambia lan moo lan la ñoo mën a def ba nga xam ne ne jaami bi dañ koo continuer hmm. te jaami pour continuer ko nag daa three areas nga xam ne dañ ko war dañ ko war a gestu benn constitution bi dafa war a pare ñu def référendum constitution constitution mooy protect ñëpp référendum bi balaa décembre. incha allah. loolu moo la gënal ba mu nee am. di référendum bi suñ ko mën a def élection def ko. parce que constitution bi moom mooy loi Gambie bi moom mooy wax term limit. mooy wax mooy wax kana kana war a kana mun a vote ak kana mun a vote. mooy wax security sector bi naka la ñoo liggéey mooy wax separation of powers. second bi mooy lan. mais electoral reforms. boobu dafa important. parce que ñi xam ne ne next election kenn du am 51 pour cent foog ñëpp. ñëpp xam nañ loolu. waaw. su ah. su la neexee naxari xam nga ko. man ah. nag waaw. Ah. ñëpp a ko xam. xanaa supporter si waaw political leaders boo boo toog one to one laa wane 51 pour cent kenn du ko mën a am. lu tax mun naa am de. because. Sénégal bi nekk fii nii rek. xam nga ne ñoom Idi Seck ñoom Sonko ak ñëpp dañoon xaar Macky deuxième tour bi bu ko defee ñu ñu bokk rek seen démocratie dafa évolve ah waaye Macky kenn seentu woon na doon am 50 plus waaye Gambie fii nii Gambie hmm. fii nii mark my word no political party will have 51 percent you might get close to it but we will have to go to the second round su fekkee ne second round bi dugal nañ ko ci constitution bi which I hope ñetteel bi hmm. Guinea security, uh, um, uh, security reform bi foog ñu xoolaat ko ñu reform security security sector reform bi dafa important ñëpp gis nañ ci bi. Hmm. ni ya ngay def orders te understand loko Yang yang ko hmm. def te xam implication bi yang ko def te xalatu lo ëllëg. Hmm. imagine suñ suñ suñ ñoñu dem through di demon through di am di security di security am um, training college bu ma ron wax ñu jangal la. probability of happening will be very low xaw ma du xew nag parce que ñun dañ dee def suñu leader si God dañ dee def suñu leader si moom rek a xam kenn loolu suñ ko defee su three areas yi suñ ko defee mm-hmm. that's a chance that peace will prevail su ko mën a def before ba pare tamit finally mm-hmm. ok suñ suñ waree def élection uh, uh, uh, at the end of three years mm-hmm. um, lana exit strategy bi naka la ñoo plané pour def elections who takes over am na ñu ma déggal ñu ne um, vice president mooy take over mu continuer temps bi am na ñu xam ne dafa nekk fa 90 days after ñu oote elections am na ñu xam ne gars yi ne ko am um, parliament ñoo war a def ñoo war a pass uh, um, a resolution or whatever you call it because am uh, ñoo ñoo war a def su ko defee ñu ñu ñu def go for election hmm. ndax su fekkee ne def na élection euh, at the end of three hmm. parliament bi dañoo am élection dañoo MPC tamit dañoo am élection au maire si dañoo am next year euh, local government election faa ñëw di following year su élection waree am defe naa ne ñooñu dinañ continuer seen fixed term ñetti at beeg juróomi at bi sax mooy yéen coalition bi yéen nañu ko dikk xam nga loolu mm-hmm. loolu rek moo indi bu dul loolu mm-hmm. bu yaay jaame gagné woon tey kenn du ko wax ne wàccal si ñetti at dëgg la bu Mama Kandeh gagné woon kenn du ko wax ne wàccal si ñetti at kenn du ñeme ña wax loolu parce que kooku campagne ñu loolu dafa mel ne ngeen ñu dik la te yéen coalition bi yéen ñu ko dik ngeen dig ñu ko ngeen falloo ñu président ñu fal président ba pare ngeen tasaaro ku nekk dem toog waaw bàyyi ñu loolu na dëgg la foofu mooy problème bi dañ tasaaro waaw foofu mooy problème bi tasaaro bi nag mooy problème bi yëpp moo ko indi te coalition bi rek ñoo mun a saafaral loolu ñu dema toogaat ñu génnaat balaa décembre ñu am position ñu am road map ba nga xam ne su fekkee ne three years bi la dem ñu wax ko naka lañ ko defee su fekkee ne five years bi la ñu joxe reason tamit su fekkee ne five years bi tamit bu bu nañ war a sas di government moo tax mu leeral ñu réforme suñu wax ne daf koo def na def na ko def mu complete ko gis naa jàmbi Gambie bi moom moo moom man is the paramount importance waaye ba tey waaye nag tamit Mr Njie jëluloo jëluloo benn position. du ma jël position yaa ngi si man PPP am nañ position bu ñu jël already. Mhm. mooy. du man as the leader. am the voice of the PPP du ma wax léegi ni because man na dama respect uh, uh, procedure ne the chair am part of the coalition. Mhm. the coalition bi suñ génnee. Mhm. suñ agree ñu génn with one voice ma I'll support that voice. da ngeen war a wax nag waxtu bi jot na. pour ngeen wax waxtu bi nañ wax parce que su wala waxut. trois heures jot na be mu fi waaw xale yi léegi amuñ liggéey ñu ngi xiif ñu ngi mar ñi bugg a dem uti liggéey mënuñoo am liggéey ñu bugg a def leneen ñu mer si dëkk bi dafa bëri ñëpp waxtu bi jot na pour ngeen wax même même politicien dañ mer war nga na wax de wax war la ne man nag maa ngi wax indi area la lay solution si maa ngi wax nan la youth di engage government hmm. maa ngi waxtaan naka la youth di engage political parties waaye si chair of the coalition su demee ba wax ba pare mën naa doo génnaat waxaat the justification of the position that we've taken xam nga protocole la mm-hmm. yow procédure man dama respect loolu suma party members am na ñu dem di wax it's okay but me being the head of the political party I have to reserve myself ba nga xam ne coalition mit nañ yeneen political parties ñu ngi wax non ñu ne mit ngeen sax waaye ñu ne UDP dañ génn ne yéen li ngeen a wax loolu xëy na amul fulla amul fayda waaw loolu la gars ñu ne ñoom duñ ñëw sax parce que waaw they have the right they have the right and they have the right to walk out they have the right not to be part of it because ñëpp a frustrate ñëpp a mer I blame the coalition for not implementing the the the, the agreed MOU mm-hmm. waaye nit ki dañ dee juum jong la ñu bàyyi nag jong la ñu affaire dafa compliqué. Hmm. nga maa wax ne euh, dama réer government bi six. Hmm. communication mooy problème bi. Hmm. su fekkoon nañ communicate nañ better. sensitise nañ victims yi. seen seen family members yi ñu ne ah lii la lii mooy TRRC. soo gisee ñu ne naa bàyyi lii la loi bi wax. limo moy démocratie unfortunately du len neex wa ni lañ buggal ngeen def o oh, lan ngeen fogné nañ ko défé ñu bolé len ci waxtaan bi su ko défé mu yomba communication moo mhm. ti arrc bi dafa wara finalize commission bi mu finalize mu ñëw recommendations su defee at lañ wax te fu mu nekk nii xaajuñ sax. waaw loolu ñëpp xamoon na ñaari at la. suñ ko defee nag ñu am recommendations. et part of recommendation is that ñu ñu ñu ñu ñu ñu am um, uh, take legal action. then the uh, justice ministry ñu def décision. parce que tiara si jong la si ñoom rek a rey. ndax some people nga xam ne bàyyi nañ ñett def nañ. torture torture na nit ñi some of them actually currently in the in the in the in the military mm-hmm. some of them are complicit in government mm-hmm. loo bi léegi-léegi dafa métti nag mm-hmm. implementation bi moo moo wrong former honorable minister dafa waroon a toog a victim center bi because that's a center you dialogue you said what is the approach that we needed to take su ko defoon nit ñi ñu educate lan then we do it waaye dafa métti nag dafa métti dafa métti dafa métti but the law is there nit ku soo ko xool uh, jàppee seventy two hours what do you do charge them or you release them looloo loi bi Usman Dabo ak anti crime unit ak ndaw yi meroon génna gaasante bi ak problème yi coow li noo Um, gisee yow um, am demonstration dafa protest dafa am riot mm-hmm. bu Brikama bi demonstration bu went wrong la. every citizen you have the right to demonstrate. but you have the public order act bu nga xam ne ne da nga war a need permit. inspector of general police dafa a jox xale permit. bu a jox permit. xale yi ne ñoo demonstrate so ñoo joxe permit nag soo jalgatee will use that permit against you. simple su ñu amee permit ñu escort leen xale dañ bëggoon a def dañ bëggoon a dem euh, euh, si area council bi joxe seen pétition te mujjee nañ koo def su fekkee ne am na rogue elements fa nekka su boobee nag suñ leen jàppee nag loi bi dafa war a teg dafa dafa war a ah, war a teg the euh, right punishment so loolu moom la am foofu noonu dañ xale yi dañu war a am permit di bindoo ñu bari ñu ngi wax ne ne politically motivated la la but then you have the security protect them tell them foo war a jaar nga dem mm-hmm. su fekkee ne from the market to the area council of whatever nii lay seen ah, ah, yoon buñ buñ leen jox def lañ ko mm-hmm. su ko gars yi dafay jox seen ñu delluwaat mm-hmm. right bi nag right laa ko ooyee mooy bijilo bi waaw bijilo bi nobody has right to take the law into your own hands is going to go around and burn properties. But security intelligence, then you run for information, for an information. That all is intelligence. But it's a spontaneous. Spontaneous. Dina jafe? Dina jafe. But then you know that young people have been angry. Spontaneous, but something else more happened than before. Xale bu ñu staaboon foofu na bañ ko rey. ah da la jël kii di gaa ah, si police custody bi foofu la foofu lañ ko toocee ba mu feebar mu génn a dee. so foofu dañ ko waroon a xoolaat waaye raaytu kenn ku nga xam ne nga jóg di lakka kër yi di la di di disturb di rapido ku ñu jàpp nga rapido dañ nga war a tëj. xam naa unfortunately la xale dañ fa straight. Hmm. amuñ liggéey. fanaa mer boobu la mer moo fa nekk. gaz baa ngi tàkk nga ko. waaw waaw. xale yaa ngi frustré de. démb min comme am semaine bu am train bu ma demoon xale seen even seen song si sax te soo angry. yaa ngi métit bi métit bi. naxaar gi naxaar bi. so how do we do to resolve it? We have to dialogue with them. Immediately, we have to make sure that we create uh, opportunities for them. Those who are skillful, we find projects to give them. Unfortunately, There are so many people, so many projects that are na that they, they, they want to empower young people. Uncoordinated. For goodness sake, let's coordinate. Money kabena. waaye yow naka ngaa dimbal ku nga xam ne door na business ba pare nga ko da nga ko empower kooku du problème bi de ku nga xam ne mu ngi toog si ghetto bi amul yaakaar dara am te am na nari kookoo soxla empowerment kookoo soxla empowerment jigéen bu nga xam ne ne su utee liggéey dañoo soo tëdd su ma tëddee yow du ma du ma la jox mhm. yooyu war a dëñ. te dafa war a dëñ te naka la moo dëñee like moo waxoon ci njëlbeen bi the will has to be there everybody am na rôle booy play the media must have an opportunity must have create a space bi nga xam ne nit ñu mun a ñëw voice out loolu. nit ñi téye nag ñoom Killa Ace ak gang bi ñu téye fan yi waaw loolu foog na indi beneen wax de. na indi beneen coow de. xam nga lu tax ñu téye leen nag. waaye sometimes table di solution unless ñu def criminal act unless parce que xamaguma lu fa nekk waaye su fekkee dafa question la rek online oh, nga laaj nan ngeen dem ki la eesu daw ñooñu ne fan lañ fan la ñoo dem the Gambians waaye su fekkee ne dañ am nañ luñ def seventy hours seventy two hours bu mu romba su romba rek <laughs> people are gonna get up people will get up to say why are they being held beyond 72 hours. So let's find out what is the problem, what has transpired. Again, it comes to communication. su fekkee i am um, Inspector général police and media officer again. the na depuis bu ñu jàppee ah, allegedly lii mm-hmm. or we are doing further investigation within seventy two hours we will come back to you xam nga loolu ñëpp mm. so If we do not communicate, if we do not plan, we plan to fail. We, we, will, we will also not be able to understand ku nekk si beneen side bi lan mooy grievance juut si dañ mar nag de waxtaan bee ngeen neex waaye xam naa waxtu bang ñu bëgg a jaamu tuuti waaye eh, am na ñaar ba ñetti laajte yoo xam ne foog ñu def loolu balaa ñoo tëj waxtaan bi PPP eh, ban pikir nga am pour PPP parce que daanaka dee ngeen de coow xanaa dégloo taay yi boos bi xanaa dégloo taay yi xanaa déglu loo pi laaste ak di seer laaste da nga déggoon piir bi. décalé nga bi de. maa si maa si maa ngi si process bi des na ñun suñoo. yoo jóg na si lal bu fe lali feebar nekkatul hôpital waaw eh, non non non. yoo xam nga loolu ah. yoo xam nga loolu ñu ñu soo laaj la. déedéet yow laay laaj kay. man nekkatu leen lopitaan génne ngeen lopitaan. ñun génne na lopitaan. nekku leen life support non. parti bi ak ñu ñoo déglu yëpp. déedéet yow la bëgg nga wax ñu. parti bi dekk dekk na ba paré parti bi door na di dox. so nga lu nekk da nga compare. Mm. last year ak this year. Mm-hmm. last year do doo dem ben ben forum nga dégg PPP. Mm-hmm. do dégg yu ci da di wax PPP. Mm-hmm. wa légui ya nga dégg PPP even soko soko bañé sa ya sax discuss ngi ñun bañun la rek. even so ñoo discuss ça is positive. So bugg de PPP sa demal nga ci si ba bi nga ñoo discuss UDP am nañ doole de GDC noonu lañ amee doole te APRC bàyyi seen loxo te dégg naa weeri parti yu ees ñooy ñëw. ah démocratie la. démocratie la fa ngeen taxaw de fa ngeen jëfandu bu baax nag. dinañ jëfandu te ñu ngi jëfandu bu baax a baax. ana doole Papa Ndiaye. nit si xam nañ ne ma man ak ñoom la tey balaa tey di jot. Mhm. ñu si xam nañ ne man du ma fiig mhm. man dama te ma dama déggu hmm. te dama am vision. te vision man e- man du ma tribaliste ñi bëri dañ ko ragal a wax nag man Gambie moo ma tax a jóg man su ma la waxte man Saraxule laa da ko xam. soo ma gisee si village bi do doo ma da ngaa fa ne kii waa village bi la soo ma gisee biir Bakaw da ngaa fa ne kii waa Bakaw la so ma gisee biir Lamine may play football fofu nu da ki wa Lamine la. am nga yakar 2021. PPP. nañ dem nañ dem rek. ñu bay lu ñoo wax moy ne bu dee KMC mo la togon ndax Gambia di nga ko antal. man KMC taw sa independent candidate. ñata political parties ñu fa demone amul won parti structure sa gannaaw. waaw suma own financing laa ron jël. ak ak ak ak philanthropie ñaata parti yoo nekkoon biir KMC te ñu taxawoon. Hmm. te ñaar ñoo ma raw. te suma campagne bi ma ko reputé one month. foog nga foog naa ne su ma amoon structure su yeneen parti political parti amoon. bu ñu dixième ba élection pare nga. PPP pare na. élec pare nañ. dixième ba ma ne élec sa pare nañ. te di ngeen am yaakaar. nañ am yaakaar. waaw des structure yi am nga ko si région yi yëpp structures yi da almost ninety nine percent certain parce que restructuring bi mooy lan am na ñu xam dee nañ am nga xam am na ñu xam ne dem nañ si doon political parties so yooyu la ñoo try pour restructure boole leen waat am na ñu nga xam ne ne twenty two years xamuñ PPP man ñooyu suma target man personnellement. xale yu nekk atati ak jëm si suuf. waaw ñooñu xamuñ PPP. ñooñu suma target. suma yeneen collègues yi ñooñu ñu ngi dem di dekkelwaat PPP di wax ak njaboot ñu nga xam ne PPP lañ nekkoon ñu nga xam ne demoon nañ ñu ngi bëgg a ñëw so ñu ngi xool rôle modèle bu ñoo toppa ñu toppa ko youth si lan mooy sa métier si youth yooyu di la déglu léegi xamuñ PPP dañ ko dégg rek am na ñu bëri ñoo xam ne seen déggin sa PPP bi daf ko taxawut a sakkan parce que euh, waxtu Yaya Jammeh kenn du wax PPP sax léegi yow lan nga am pour wax kooku nañ wax ne sànni karta suba la kooku laa déglu tey looy wax ko pour mu jox la karta one dina PPP is the new PPP two Papa Ndiaye boo xamoon ten years ago moom mooy head PPP léegi three Papa Ndiaye boo leen xamoon with his integrity with his vision with his foresight and his innovativity nangoo jël risque pour jël 20 percent of the population you benefit than 10 percent bi Papa Ndiaye fa nekka te Papa Ndiaye boobu soo leen ko joxee Togo bi dina move PPP dina move Gambia forward te di la wax leneen nag bu maa ngi ko discuss ak gars yi electoral reforms si ne it's about time ñu xool loolu tamit soo bi soo nekkee soo nekkee président da nga war a resign from being the head of your political party nga become an honorary member soo nekkee président you're for Gambia. that is interesting. that is interesting. imagine loolu rek so once you become president léegi ñëpp la moom. waruloo mën a head party. waaw waaye bu élection nag pour sa second term. second term ñu am condition su nga xam ne dafa dafa nekk si loo bi simple. am na legal expert wala su ko defee président bi na concentré liggéeyam su concentré ni nit ñi ko sànni laat nit ñi liggéeykat lañ bugg a waye yéen ngeen lolou daf leen dox yeen opposition ñu nekk ci biti doole motax nak baro Barrow def meeting di masam State House parce que yeen a ngee campagne yeen taxawu leen moom bu ko da taxaw. moom mo incumbent ramonté la. baro mo incumbent bi. Eh, doole la doole bu mu am su implementer project sam yeb tolo loolu one step ahead la. doole brown envelope am bi nak loolu mo ah, bëgg mo leen bëgg a yeen li léegi man yow yow gisuloo ko xam nga yow sakanuloo National Assembly. bu ñu nekk National Assembly xam lañu brown envelope bi. man gisuma brown envelope. déedéet gis nañ pick up bi. ñu raw loolu bras enveloppe yi ñëw waaw léegi ñu ngi ne suuf yi yundum tam mu ngay ñëw a ah, nga xam ne incumbence bi nga wax ni am na doole non am na doole waaye nit ñi léegi ayewu nañ suñ di defee civic education ni ñu ko war a defee suñ ko génnee si government bi ñu def ko independent mhm. ñu continuer sa éducation ñëpp ay éduqué te ni yow léegi ñi ña ñi de xale yi next election ñëpp ay am voters card loolu am na dañ ngay wax ne xale yi duñ ngay vote mhm. waaye xale yu maa déglu nii <laughs> dañoo bëgg dañoo sànni carte nañ sànni. dañoo sànni bu baax a baax moom. te xale dañoo déglu dañoo déglu de dañu ne waaw kii kii ñoo bokk a koñ oo kii jox na ma brown enveloppe non dañoo bëgg a dégg si yow. police yi. police yi. looy def looy def. noo koo defee ak noo ko defee ñoom luñ cee amee njëriñ. waaw ak intégrité gis nga africans nag dañ dañ mën a bind project documents. Hmm. dañ mën a bind policies yu rafet. Hmm. implementation mooy problème implementation bi. track record bi mooy problème bi ak integrity of the leader loolu soo ko soo soo amutee loolu rek no matter how good the project documents are da ko mën a implement ba pare dañu war a am système bi nga xam ne ne dafa transparent operational manual mu doon liggéey American embassy am operational manual dañ leer bi nga xam ne ne man su ma su ma génnee si am embassy bi tey tey tey ëllëg ku faa ñëw dafaa xam fan laa mu continuer ko simple loolu dañ ko war a xoolaat civil service bi dañ ko war a xoolaat dañ war a réforme civil service bi mm-hmm. downsize ko mu mu du ko moo efficient te ñu fay nit ñi mm-hmm. lu ko jar ñu ngi fay fay baa ndaw rek um, keroog once dama jëlam poli police mm-hmm. from traffic light di ko yóbbu um, um, uh, tontee ba mu wax la salaire bi mooy sa dépassé bés mu wax salaire bi mm. ma bëgg a jooy ma ne ko yéen léegi naka ngaa dundee mu ne Mr Ndiaye yow léegi man suma ma taawee si naaj bi depuis suba ba guddi ku ma ñoo jox dara what do I do am tempted because suma doom maa ngi feebar mu ngi tëdd lopi mu ngi tëdd mu ngi tëdd kër mun ma ko jëlal garab saako mooloo baa ngay jeex school fees baa ngay ñëw so the the propensity for kooku mu corrupt is very high so yëpp lañ war a xool di minimum wage dañ ko war a xoolaat the food basket dañ ko war insurance bi dañ ko war a xoolaat for civil servant. monsieur Ndiaye euh, jërëjëf si waxtu boo ñu jox ak ité bi. Euh, di la wax nag ne mun ngaa gaaral kàddu yu mujjee parce que waxtaan bi yaatu na te defe naa ñun luñ ci namoon am nañ ko ba pare sax. jërëjëf waaye euh, yow nga gaaral kàddu yu mujjee loo bëgg a wax ñuy bëgg a ànd ak PPP ñu faral feneen président bi ndaw yi jigéen ñi gaaral kàddu bu mujjee daal. thank you very much content um, uh, nañ sa liggéey um, rôle boo play rôle boo war a play la parce que media bi dañ war a play lii you war a def xool su um, uh, leader accountable jox ñëw interview and jox information to the public di wax ne jamu jàmm bu fi nekkoon jàmm bu fi nekk jàmm boobu lañ war a continuer political parties yëpp we are gov we are government in waiting ñoom nguur bi nga xam ne ñu ngi toog di xaar duga suñoo politique ñu politique su content su ay issues ñu ko politique si lu nga xam ne dafay divide Gambia PPP de ñëwaat nañ revitalize PPP new PPP PPP bu nga xam ne ne dafaa déglu PPP bu nga xam ne dafaa dem dialogue ak nit ñi PPP bu nga xam ne ne ku ñoo démba ku ñëw tey ak ku ñëw ëllëg ñëpp is the people's party and we continue nañ make sure ne parti bi fondement bi ñu taxawaloon mooy parti béykat yi ku di wah ne tamit politique dafa am wa politique waruta tax ñuy saagante waruta waruta tax mu tas tas mu is ideas yow sama xalaat sa xalaat nga am ki xalaatam ñëpp ñu bugg a benn benn benn benn bunta soo duggutee nga xaar sa toon nga nekk nga nekk ah, nga nekk nga nekk di ah, di watchdog of ah, ku fa nekk parce que soo soo nekkee si biti ngay saaga di saaga bés mu nekk te waxloon nit ñi sa policy soo duggee ah ñun yow tamit nit ñaa saaga de te su ña saagee doo wax nañ make sure civic education civic education to ko school be civil servants ñu jang lu ñoo def ne ko dëgg bi la dëgg dëgg moy mujjé su fena nga dugal da nga ñew dugal politique ti fen au di dara fofu na yoona di right pass dugal politique parce que da nga gom dëgg bi da nga go gambé té man Papa Ndiaye gambé gambé la gis di lay wax né jërëjëf contane na trop di wax tamit um, li just the beginning PPP were back di wax ni ñu nga xam ne ne demoon nañ ah seen kër seen seen këri baay bi de samp nañ ko ba pare ñëw la ngeen jàppa si ñu defar PPP mooy party of independent. so insha allah comme next election will be the will be the next government to make sure that um, uh, legacy buñ fi bàyyoon the good ones you continue with them thank you very much jërëjëf uh, Papa Mouhamadou Ndiaye am nañ kontaan torop torop torop torop nu ñu dalalee sa biir kër. Ah, loolu wane na ne am nga ite ah, te nit yi nit ñi nga. ñu ngi la eh, jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal jàmm di ko ñaanal sa njaboot ko ñaanal réew jërëjëf. jërëjëf.